puriste jël yoonu place Soweto ne saraax ca biir penc ndaw réew mi assemblée nationale yenekaay bi di laas xëye ko ne deuxième vague bi jañax na bu baax assemblée nationale ndax faat na fa benn député soxna Marie Louise Diouf honorable député Mamadou Lamine Diallo it jàngoro ji dugg ko ba mu xamle ko teg ce ne mu ngi sant sunu borom bu baax waaye di sàkku ci ñëpp ak moytu ñeel coronavirus las ne assemblée nationale dàqun fa sax xalaatu amal fa ay test ci lu yaatu moom léegi ñu ne ci tëju lañu koy def maanaam gën caa bari ñaar fukki député koy teewee les échos ne tiitaange dugg na ci assemblée nationale ak virus ba fay wër benn député faatu fa Mamadou Lamine Diallo amee jàngoro ji yéenekaay bi ne am na député diaspora boo xamante ni ame woon na ko it amit ñu nu ko njortal les échos dafa laaj ne ndax du nu fa yegg sax ba ci teste ñëpp maanaam xool yaramu député yëpp ngir xool amee nu am déet jàngoro ji jàngoro nag bokk na ci li ko mën a fànqalaw askan am cet cet ci fànn yëpp waaye set ci wàllu dëkkuwaay yi te mooy xëy na cetal gi nu fi jógtee woon ci njiital président Macky Sall duppee ko njort ne balaa ndakaaroo mel ni Kigali dina yàgg de ndax dafa mel ni lépp la ñu tegaat ci suuf donte xalaat bu rafet la woon tukkee ci président Sall ci ñuy wagas loxo yi di setal suñuy dëkkuwaay ak li ko wër waaye directeur du cadre de vie Oumar Ba ne dee tegunu lépp ci suuf daa fekk ni doxalin wi la ñu soppi maanaam jëfin wi Covid 19 nag du assemblée nationale rek la tere nelaw waaye borom kër yi yëngu ci wàllu hôtel yeeg wàllu tourisme Moustapha Kane secrétaire général syndicat patronal këri hôtel yi Sénégal ne liy raam ci ñag bi la jëm sunu ci jógul rawatina ñu gaaw doxale ndigal woon ci président de la république ngir secteur bi monsieur Kane ne sudul woon sax moom président Sall ak sénégalais yi taamu woon di def tourisme local làmbaay gën a ñaaw moom président Sall nag du ñàkk bañ lambay ñaaw ci secteur yu ci mel ni këru diw yi ak ni campagne gerte gi tëddee moo waral ak yëgaloom démb ci conseil des ministre sàkku nañu gën may gët wàllu contrôle gi ñeel surtaxe yi ci gerte geeg ñu ko yóbbu bitim réew di lu nu jàngee ci yéenekaay bi di Le Soleil leneen lu fi nar a doon ak cooxee di pétrole ak gaz bi nu fi tegoon yaakaar gu rëy ndeke ku moywul dara la dul dugal ci réew mi boobe pétrole ak gaz sunu sukkandikoo ci rapport kuñ naan Johnny West fondateur Open ci yéenekaay bi di enquête ma nga ca naan dara la dul yokk ci koppari askan wi la ko sookee bokk na ci véhicule électrique yi ca ko mooywul mu ne Petrosen ci bor yu metti la jëm gaz bi mu ne njëg yee wàcc ndax àddinaa ci am lu ne gàññ la tribune ne loolee de xibaar bu naqari li ci Sénégal ci lépp nag Covid 19 secteur bi du lu muy yokk ci sunuy koppari askan du lu muy ñu nar a wàññil ci sunu bor bu diis bi bor boo xamante ni beneen milliards yi dollars dina ñëw tegu ci li lépp nag war a tax ñu gën a ñoŋal koppari réew mi gën a xeex ak njubadi gi ci ñenn ñi waaye daa mel ni ba fii Sénégal garabu sàcc gi war a téye loxo yi ñenn ci ñu nu dénk amagunu ko rapport ARMP firndeel na ko observateur xëye ko ne càcc gu kawe fi gis xiini miini ci wàlluy marché logiciel contrôle parrainage ga fi woon ak it ay cartouche encre ngir présidentiel ga fi woon ci ajurut ñu ne wuuteeg ñaar fukki milliards jëm ci lu ñeel BRT gi dépassement marché équipement sportif yu nu fa baaxee société d'études ak travaux techniques porop ndakaaru ay rëq-rëq ci marché bu lu ëpp milliard ak ñaari téeméeri million libération ne ARMP ay mbóot dëgg la génne ca postit ci misaal ak lëndëm ñeel millions ca SNR marché produit d'entretien ak i pile électrique yu nu fa facturé Agirout ak Apix ak xiini miini ci milliards yu ne ci wàllu dépense ñeel TER bi ak liggéeyu BRT ministère environnement moom ñu ne ngir jënd ay mbaam jàpp ministère bu ci mel ni bi ñu dénk économie ak finance ministère intérieur LONASE ak ñeneen ak ñeneen wàllu xëy ci réew mi ak jafe-jafeem laas ne mbootaayi syndicat yi ci réew mi ñu ngi waajee yëngu-yëngal ndax ñu ne patron yi jalgati saa su ne ak ak yelleefu liggéeykat yi ak état bi ne nemm rek mel di móol bu tege centrale syndicale yi dàqu nu xalaatu amal grève général ci réew mi nag xayma gi ci limab xëy yi nga xamante ni covid 19 bi na saxal na ko fi le quotidien xëy jàpp ne onze mille la fukk ak benn junni yu seeni boroom ñàkk seen xëy yéene kaay ñu ànd ci ak Alaaji Ahmed Aidara yow suñu pétrole bi lé ak gaz bi attention de enquête yéen a kaay ne wàllum exploitation pétrolière boobe ak gaz ba waaw guddi gu bët setagul la réew mi nekk de wàllum incertitude dëgg sax parce que nag gis nga Johnny West mi nga xam ne mooy fondateur Open Oil waaw yénnee na ab kayit woo xam ne day di am rapport woo xam ne yaakaaru Sénégal nag ci pétrole bee gaz bi la daal dinay tas maar day tali waaw parce que tubaab bi day daal dinay xam le ne koppar gi nga xam ne nag maanaam moo war a jóge ci pétrole bee gaz boobe daal di dugg si kon ci suñu biir kees yi lée du dara ndege de xaalis boobee du dara waaw te sabab lu ni mel nag mooy oto yi nga xam ne maanaam courant moo leen di dawal léegi de mar di Italie waaw waaw moo tax it gis nga Petrosen gi boo sàgganee ci ay bor rek lay dem de ci ay bor ay bor yéeni kaa gi ne lu jëm nag ci wàllum gaz bi de waaw njëg ci boppam day mën naa wàññee ko lool ndax gaz naturel bi nga xam ne li ci àdduna yor ci boppam kon dafa bari lool termine yéene kaa ne jàppal ni corona gi tam jaar na fa de mar di Italie ci wàllum pétrole bi ah, day xabaar bii du neex ci moom de déedéet parce que tubaab yi daal la xamle mooy amul benn benn benn benn koppar gu bëri xam ne nag maanaam dana dugg suñ kees yi lée ci pétrole bi gaz baax dégg de te duñu indil dara tam ci bor bi xam ne nag maanaam dañu ko yore ni lé wàllum dette publique bi waaw yéeni kaay dee média gi ne Sénégal kay fi mu nekk nii boo sàgganee benn milliard ci dollar yoo xam ni dana dikkaat doollee quoi ci bor bi xam ni kon moom la ñu yore allahu akbar laa ilaha illallah ay ca jamono jooju nga wa honorable député moo génn adduna allahu ar aji mbeer gaan kan te te xoolal bi ñuy commencé plénière yi mi ngi fii gis naa ko Cheikh Abdou waaw nee na xamal nañ ma am na ay député yu bëri yoo xam ne fi mu nekk nii dañoo feebar te ñu ngi ci biir hôpital yi laa la wax allahu la ilaha illallah les ko yéene kaa ne njaqari diis waa assemblée nationale kay jaxasoo nañ de lool léegi kay ministère yi di jàll foofee waaw dugg ca biir la wax uh-huh. <laughs> waaw waaw waaye est-ce que député yi danañ leen defal test laaj ba laast en tout cas ñaareelu vague ba day dóor na yat koon waa assemblée nationale defandoo nag ay des yu bëree bëri la gars yi jàppale ak wii kulo ba kay assemblée jëm a corona ak lii Moustapha ci box populi waaw nee bu yeboo ñu jàq de ti lool ci lu jëm nag ci wàllum industrie gi lée ak wàllum hôtel ba ci sax mbirum tourisme gis nga suñu wàllum koom-koom gi lée boo sàgganee covid gi danañu dund looloo xam ne kay maar di daal di waxtu samay kàddu dee vingt-quatre heures ne waaye xam nga Macky Sall moom lan moo ko teree nelaw fi nekk ni le waaw wàllum njënd ak njaayum gerte gi lée campagne commerciale arachide bi dama ne 2018 2019 lée chiffre yaa ngi nii la de les ko yéene kaa ne Macky Sall day yorin gu bon ngoo xam ne moom la ñu nimi ko ci wàllum marché public yi ëpp na l'observateur ne sàcc gaa nga ca kaw ca kaw a kaw a kaw nguur gi sàcc gaa nga ca kaw de xoolal ma marché wu logiciel lu contrôle parrainage bi ak carte encre yi waaw ba la ca doy na waar ageri to ngi nii la ñaar fukki milliards ci marché BRT bi daal la yow yow defar appartement ministre intérieur rek romb romb na jàppal ni ministère économie ak finance day jàpp nañ ko ak port autonome de Dakar ak ministère intérieur ak LONASE yorin gu bon waaw tur sa ané ñan ñooy champion yi nag libération yi nekk ay ne commande champion yi ñan nañu commencé ak poste waaw bi Ablaye bi bi bal jiite lu tolloo juróom ñeenti téeméer ak ñeen fukk ak juróom benn ci ay millions yoo xam ne daal la ndëm neuf cent quarante six millions presque un milliard xoolal ma société nationale de recouvrement i bagage ñeenti solidarité nationale moom délégation ba waaw ñooñu moom lu leen neex la ñuy def duñu respecté dara waa AGEROUTE ak APEX moom waaw ay milliards yi milliards yi ñu dépensé ci TER bi ak BRT gi lu bëree lëndëm laa la wax xoolal ministère environnement jënd ay mbaam mbaam yii mbaam fukki millions ak ñett eh way samba naa loolu moom mooy mbaamu naaru góor ministère ndox bële factures ci atelier yi la ñuy def ay njuñ njaaj maire bi ñoo nekkee dugg ak mbaam bi loor ay fournisseur rek la la fa am amul fenn laa la wax ministère yu ñuy jaawale parce que fourniture bureau ba day société wañ ko jox waaw ci wàllum bâtiment lay yëngu eh way samba ci waa suyaareel marché entretien mobilier bureau ba day ñu jébbal ko fournisseur boo xam ni day wàllum étude ak prestation de service lay yëngu eh way samba laas yoonu nu marché public yooyu eh, ARMP jam la baaraamu tuuma Aly Ngouille Ndiaye Mansour Faye ak Pape Gorgui Ndong le témoin yéene kaa ne Ndakaaru Ndiaye jajoo bé eh, na du sédé comme ki gali ca Rwanda mukk ndax clinique ma la wax Oumar heure du cadre de vie waaw nee na clinique day ba day tabiwul ci biir ndox de dañoo changé nañ ko doon defee aa waaw Macky Sall dee daa amatul seen jot ndox politique bi obile critique yéene kaay nañoo Aline Badara Cissé bokk na ci ñi nga xam ne ñoo judul kon APR congéniteur la waaw waaye gis nga tey ji lee fàtte nañ ko de Macky Sall ni lay éliminer moo graaw liquidation bu sedd kuy waaye nag maître Aline Badara Cissé day nañ ko xamee woon sénégalais yëpp dañoo war a jàppale Déthié Fall mii ndax njàmbaaram ak bëgg réew sur quotidien waaye gis nga léegi gars a loolee moom conseil constitutionnel rek a moom day génn na Thiès ma ngay def action sociale day ca diwaanu Guédiawaye a yi day la doon jàppale direct news te jamono jooje nappkat yi nee na ñu Macky Sall kon na fi jëlee Alioune Ndoye mar di taali parce que nag bëgg def alliance politique warul tax nag ñuy sacrifier kon ab askanug lumb ndax léegi daal dund gi mitti na lool ci nappkat yi lée ñu ngi bëgg a dee te nappkat yi nee nañ dinañu organiser ab marche day ngir Macky Sall nag jëlee socialiste yi ci wàllum napp gi évidence ne kaane waaye démb dee ngir laaj seenu bourse waaw étudiants yi jaxal nañ université ba muy jax-jaxe laa la wax yamuñ ca dama ne la albumu maam góor jasaaka ba sax dañ ko doon taaw <laughs>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 moom sax moo ko moo ko fésal ci compte Twitter am ngir kat mën a dagg bu mu ko wàllaate gi foofee ci assemblée nationale. plénière bi dafay continuer ci assemblée nationale wante ci huis clos rek la ñu koy defee ak lim bu néew lool boole ci itam presse bi waa RTS donc la ñu jàppandalal ñu mën a dugg foofee ci assemblée nationale. situation Covid 19 tax na njiitu réewu Sénégal daal di sàkku ci gouvernement bi ñu yokk seen vigilance ngir gën a améliorer bi ñuy xeexee Covid 19 fii ci Sénégal. sàkku itam ci bépp ministère bu mu concerné nga def sa kemt lay kantan ci lëkkaatloog askan wi ngir ñu mën a dakkal jooju taw. Covid bi waaye ñu jékki saa rek cas yi nekk di di bari ba sax autorités dañu xalaat ni dañuy dem ci deuxième vague. ñun nag alliance nationale des communautés pour la santé ñu ne ñun cas communautaire yooyu duñ ko bàyyi noonu. fépp foo xamante ne gouverneur yi ñu ngi yor si xeex dañ fa ñëw andil leen ay jumtukaay jumtukaay yi ñu leen andil raxasukaay loxo la yoo xamante ne comme ni ñu ko waxee nit ñi dañu war di raxas seen loxo dañu war di diwoo ay ay gel ñun indil leen ay lowu gel nit ñi dañu war di masque wu ñu andil leen ay loowu masque nit ñi dañu waroon bu ñu nekk ci hôpital yi sol ay gants di liggéey ak moom ñu andil leen ay gants te jumtukaay yi ñu andi yemuñu sax ci gouverneur kese dañu dem ci hôpital yi hôpital bu ci nekk ñu jox la loo famille religieuse yu ci nekk ñu jox la tamit loo. ANCS nag mu ngi woo ñi ngànk xeex ak jàngoro jii di coronavirus ñu boole ñépp ci xeex bi ngir daan ko Aliou Kane Kaolack Zik FM. Alioune Badara Kane maa ngi lay jaajëfal fexe xeex lii di médicament yu baaxul yi muy faux médicament ci Afrique. Euh, surtout ci euh, Sénégal ak Afrique ak li ko wër tax na association des industriels pharmaceutiques en Afrique euh, francophone subsahélienne amal benn ndaje bu am solo fii ci Dakar am na ay matuwaay yoo xam ne jël nañu ko surtout fas yéene ci lëkkaatlu population yi ngir kat xamal leen musiba bi médicament yooyu di def non seulement ci seen wàllu sante wante ci wàllu koom-koom. Adji Fanta say responsable commission éthique bu association ginnaaw bi mu demandee ci ñu gën def fulla ci wàllu xeex covid 19 sàkku na itam ci ministre bi lu jëm ci wàllu finance ak budget mu veillé bu baax ci application effective li nga xam ne moo tënku ci exportation gerte gi ne ci veillé bu baax ba bu ñu génnee Sénégal gerte gu ëpp gu mën a lor huilier ak Sonacos si nekk fii ci Sénégal njiitu réew mi la moo gën a sàkkuwaat moo di ñu fexe ba industrie yooyee ñu gën leen a doole ndax yooyee industrie kat am nañu rôle bu am solo bu ñu ngi koy def ngir kat yokkute am ci création d'emploi permettre tam ñu daal di mën a protéger suñu euh, dëkk bi maanaam suñu réew mi ci lépp loo xam ne jëm na ci wàllu koom-koom bàyyee ko ci gerte googee waa ARMP jébbale nañu seen rapport 2018 2019 nga xam ni def nañ ci ay publication yu am solo ci 119 autorités contract euh, contrat yoo xamante ni bi audité nañu ko ci téeméer ak euh, ñaar fukk ñetti contrat xanaa kon ñeent cay des ñu sélectionné ci ñeent yoo xam ni xëy na échappé na leen ci biir contrôle euh, bi nga xam ni laaj na ko ci seen biir structure boobale nga xamante ni bii def nañu ay leeral ci port autonome bu Dakar APIX Euh, yoo xam ne dañ leen épinglé ci aw ŋabbin woo xam ni wu lay marché yu desee leer awale ko ci yoon wa mu war a jaar

sanitaire bi di Covid 19 audit bi euh, jot naa fësal ni rek impact procédure passation de marché yi si délai d'exécution yi dafa ji rek lu positif waaye nag auditeurs yi ci seen bopp sàkku nañ ci yenn autorité contractante yi ñu yokkaat seen système d'archivage rapport bi itam fësal na lu toll si junneek ñeenti téeméer rek juróom-ñaari plan de passation de marché yoo xamante ñoom la ñu jot ci juróom fukk juróom-ñaari junni ak lu topp ci ay marché itam jot nañ fësal progression bu mucc ayib rek ci wàllu suivi ak prise en charge recommandation audit li ñeel rek dépassation marché public yi am na bu buñ ci nemmeeku rawatina ci transmission document yi. sa Safetou Ba Ndiaye démb amoon nay jàppante yu dox ci euh, diggante étudiants yaa koy takk der yi dañu doon manifester ngir laaj seen ñaari weeru bourse yu ñu leen ameel. nga xam ni mujjoon na nekk affrontement bu metti bu bari nañu ci am ay gaañu gaañu ba sax étudiants yi dañoo tuumaal police yi ni dañ doon jëfandikoo ay balles réelles Cheikh Ahmed Tidiane Diallo toog nañu presque ñaari weer jotuñu seen bourse loolu moo waral tey ñu wàcc ci tali bi ngir jàmbaarloo ak takk deer yi étudiants yi nekk ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru dañoo bloqué woon buntu entrée université bi. ñun ñëpp ko gisandoo étudiants yi ñoo wàcc di réclamer seen bourse ñaari weer a ngi nii fayuñu leen ko nguur gi moo téye bourse yi fayuñu étudiants yi dara ba étudiants yi génn dégénéré. ci seen jàmbaarloo ak takkadeer yi la directeur kudd woote téléphone ngir ñu arrêté seen manifestation bi. man na Cisco pour qu'il libère les éléments qu'ils ont capturés jàmmarloo yi métti woon na am ay étudiants yu am ay gaañu gaañu ñenn yi ñu jàpp leen seen naataangoo yi di sàkku ñu bàyyi leen. am na sax ñenn ci ñun am nañu ay gaañu gaañu ñeneen yi sax dañu leen téye ñu ngi woo kilifa yi nañ leen bàyyi bu gën a gaaw. commissaire central bu Ndakaaru mu ngi woon ci manifestation bi moom nag mu ngi woon ñëpp nañu ànd ak dal. policiers yi nekkuñu fii ngir jàmbaarloo ak yéen yéen tamit da ngeen di xam ne ñun ñu ngi fii ngir aar leen. quel est le sens euh, message gu bàyyeeku ci commissaire bi doon dalloo xelu étudiants yi. tey euh, xam nga ni ci manifestation yi itam ne woon nañu kii nga xam ni moo di Babacar Diop njiital FDS Gelawaar dañ ko arrêté waale woon ñu génne benn communiqué ñoom waa Partem ni loolu amul moom Babacar Diop démb yëpp mu ngi yendu ci amphithéâtre yi ca fa nga xam ne fa fa la war a nekk di jàngale comme ni ko ko yoon jàppandale ki nattangoom du benn yoon bu ñu leen benn manifestation concernée foofee ca UCAD ca bitim réew la ñuy daal di dem ak Henri Konan Bédié mi nga xam ni moom la ñu sampoon mu nekk ca boppu euh, conseil euh, transition bi nga xam ne opposition ivoirienne bi ñoo ko taxawaloon ngir doon contester euh, li tukkee woon yi résultat ci élection présidentielle yi nga xam ni dañoo falaatoon Alassane Dramane Ouattara moom Henri Konan Bédié séq na ndaje ak Alassane Dramane Ouattara fukki fan ak benn ci weeru novembre bi ñu weesu la mu ci jublu moom béjjee nee na daa bëgg ak dal am foofu ci réew moom it apaisement bëggul benn fitna goo xam ni kenn du ci bénéficié wu foofee ca di d'Ivoire kon élection yi jeex na suubu ci liggéey ba rek joxante loxo moo gën a nekk faxata ca Ghana ki nga xam ni moo nekkoon président wu réew ma doon euh, ki nga xam moo di Nana Akufo-Addo daal dinay gagné élection présidentielle yi fa amoon ci cinquante et un virgule pour cent wu jëm wa di John Dramani Mahama daal di am 45 virgule 63 pour cent kon résultat yi loolee la joxe gum provisoirement euh, ci législative yi itam opposition bi am nañu lim bu sakkan waaye dabuñu ba tey euh, parti nana bi jël majorité bi foofee ci assemblée nationale. coronavirus mu ngi gën di yaatu fële ci diwaanu Mali depuis euh, xaaju weeru novembre bi ñu weesu ak léegi daanaka. ay eh, téeméer jàpp téeméer ak juróom fukk eh, ci eh, chiffre yoo xam ne joxe nañ ko ci ñi wopp ji daal waaye ñu ngi continuer xeex ba ci am na gox yoo xam ne gis nañu fa ay dellu tel gannaaw Euh, lu toll ci ay fukki fukki fan yoo xamante ni bi autorités yi ñu ngi continuer di annoncer mesures yoo xam ne jël nañu ko ngir gën renforcer lii di prévention yi ba mën a jàkkaarloo bopp jooje nga xam ni euh, mu ngi euh, gën di yaatu foofee ca Mali nga xam ne ci fan yi mujj ji rek officiellement déclaré nañu cent quatre-vingts personnes yoo xam ni faatu nañu foofee ca Mali ci coronavirus fukki simili ak juróom moo toftalu ci juróom-ñetti waxtu. Voici Trafic News. Ba ale maa ngi lay ziar. bay ale bay euh, ale dinaa la lambat Zik FM Actu Sport Baye Mante Mboup maa ngi lay ziar maa ngi lay fay bu baax a baax El Hadj Mouhamadou Mansour Diop ñu doore ko ci afro basket ak U18 ci wàllu góor ñi ak wàllu jigéen ñi Sénégal euh, daanooti na démb ci kanamu Mali jigéen ñi jëkkoon a daanu góor ñi daanu nañu itam waaw démb nag la Sénégal tamit ñàkk ci kanamu Mali final gi jëm ci afro basket U18 euh, masculin yi ñu doon amal foofu ca Égypte comme ni ko nag Mali daane woon ci atum 2018 euh, foofu ca Bamako démb tamit Sénégal ci score bi nag 82 80 kon ñu jàpp ne kii di Bourama Koulibaly moom nag bokkoon na ñu gën ràññeeku ci boobu la jogante dugal lu toll ci ñaar fukk ak benn poñ am cinq assist ak euh, juróomi rebond tax na sax moom ile ñoom ñu tagg ko tabb ko MVP euh, ci boobu li euh, tournoi bokk nag ci cinq majeurs moom mi nag ànd ci ak ñaari égyptien di Mohamed Abou Zaïd ak Mohab Abdal Latif bokk ci tamit ak dio sénégalais bi di Babacar Sané ak Ibou Badji kon tamit ci wàllum jigéen ñi Égypte mi dalal lee compétition moom moo jël finaal gi ci kanamu Mali 68 63 ñu jàpp ne kon Sénégal moo nekk si ñetteelu place bi ndax ñetti équipe rek ñoo bokkoon ci boobule compétition ñu jox ko tamit titre euh, prix euh, fair play kon tamit Égypte moom ci euh, kii cinq nag majori Yara Hussein moom lañ désigné MVP mu ànd ci ak kii di. Yacine euh, Aguer Yacine tamit ab doomu égyptien la ak ñaari malien yi du Juma Berté ak Diarra Sissoko niki noonu sénégalais bi di Khadija Faye mmh. ñu wax ci wàllu situation précaire yi ñuy nemmeeku ci anciens internationaux yi fii ci Sénégal ñaare ci bàyyi yëngatu daal boo tawatee faju sax da lay të. en tout cas seetlu bi daal euh, doy na waar loolu ndax tamit soo xoolee bëri si ñoom ñi nga xam ne nag comme ni nga ko waxee rek bu ñu paree si seen nag wàllum carrière dañuy am ay jafe-jafe daanaka nag euh, kaaw kendo yi lañ dégg rek waaye nag bëri na si ñoo xam ne tey jile xëy na seen ab jafe-jafe mënuñ ko fësal ñu ànd ci ak jàngatu kii bi kenn xamul nu mu sportifs internationaux yoo xam ne dañuy am ay jafe-jafe yu tar ki ci mujj mooy Ken Ndoye triple championne d'Afrique ci wàllu athlétisme feebar amul sax lu mu fajoo presse bee ci mujjee wax ba président Macky Sall dégg ko ñëw en sapeur pompier may ko fukki million pour mu faju waaye bu dul kenn Ndoye problème mu ancien sportif de haut niveau yi nekk ci jafe-jafe dañ cee war a trouver solution ay athlètes lañu yoo xam ne lépp lañu bàyyi seen carrière défendre Sénégal fu ne yëkkati drapeau Sénégal mooy ut saafara ci situation sportive d'élite yooyu xalaat yi moom yàgg naa commencé am na ñoo xam ne dañoo ne il faut ñu def statut particulier boo xam ne dafa jëm ci ñi nga xam ne ay atlete de haut niveau lañu ñeneen ñi jàpp ne dañu leen war a wutal mutuelle de santé am na ñeneen ñuy wax ne tamit nañu def ay assurance maladie lu ci mënti am ak format bu ñu mën a utiliser li wóor te am mooy war nañu ut saafara boo xam ne dafa jëm ci teggi jafe-jafe yi nga xam ne anciens sportifs de niveau yi ñu ngi koy dund te nag booy xool dañoo sacrifier seen lépp ndax seen dëkk teewal seen dëkk fu ne waaye ca cëppaandaw gi amul dara luñ ci gañe loo xam ne tey jii dina leen mën a génne ci seen situation cas sociale yi ñu ne président Lamine Gueye ñu wax ci Ligue des champions xam nañu léegi équipe yi nga xam ñoo qualifié pour huitième de finale yi waaw ni ki démb nag ba ñu jeexalee lu jëm ci wàllu euh, phase de poule yi kon nag ci lañ xam équipe nga xam ne nag jot nañoo qualifié ci euh, lu jëm ci wàllum seizième de finale yi toll ci nag lu toll ci euh, seize formation kon suñ koy xayma ci premier groupe yi bokk na ci Bayern Munich Real Madrid Liverpool bu ñoom Sadio Mané Chelsea bu Edouard Mendy Borussia Dortmund Juventus bu Turin Paris Saint-Germain bu ñoom Idrissa Gana Gueye ak Manchester City ci deuxième nag euh, ci euh, ñu jël deuxième seen groupe bokk na ci Atlético Madrid Borussia Mönchengladbach Porto Atalanta bu Bergame FC Séville Lazio bu Rome FC Barcelone ak équipe bi di Leipzig yeneen équipe yu ñu réservé nag euh, ci Ligue Europa bokk na ci Salzbourg Shakhtar bu Donetsk Olympiakos Ajax Amsterdam Krasnodar FC Bruges Dinamo bu Kiev ak Manchester United elage ñu jeexalee ko rek ab euh, tiis euh, kii di Paolo Rossi ñu gën ko xam ci euh, Pablito amoon 64 ans moom nag ab italien la woon ñu gën ko ràññee nag ci mondiale bu 82 foofu ci Espagne di fàttali nag moom dafa jóge woon ci prison. ñu impliqué woon ko ci affaire scandale marché euh, truqué mu jógee fa nag euh, ñëw tax ba Italie jëloon na euh, coupe du monde 82 ñi ki noonu tamit ba mu si jógee mu remporté lii di ballon d'or bi moom nag ñi ki démb la faatu foofu ca Italie kon El Hadj fi li ñu nekk ndarkeppe lu jëm ci wàllum xibaaru tàggat yaram